waaye ak seenu bind ñu daal di koy jël delloosi ko ci daara ji ñun ñëpp ñu andi ci ay jàngat fas yéene xool ci ñoom nan lañ daan dundee ak alquranul karim tey nag ñu dem ba fële Kaolack seeti ki nga xamante ne moom mooy sunu maam Ibrahima Niass ñu gën ko xamee ci Baye Niass rahimahullahu subhanahu wa taala ñu xool ci lenn loo xamante ne dénk nañu ko ak ci alquranul karim waaye yenn njàngale yoo xamante ne bind na ko ci diggante moom ak alquranul karim yàlla na yàlla buur bi subhanahu wa taala yërëm ko te yàlla yëkkati ay darajaam ca aljanna ci seen jotaay bi nga xam ne mooy jotaayu asalaf mal quran ngeen di ko abe ci kër gi nga xam ne mooy la maison du Coran du ñu fàtte mukk jëmm yi nga xamante ne ñoom ànd nañu ak ñun ci liggéey bi muy loo multimédia nekk fële nga xam ne mooy Sandaga euh, di jaay lépp loo xam ne jëm na ci électronique euh, ku bëgg a jëflante rek soo dem ba foofu yaakaar naa di ngeen gis numéro yi waaye fële ca euh, Liberté 6 ñoom ñëpp euh, bàyyiwuñu alquran mukk bàyyiwuñu gaalu alquran mu départ dañ cee ànd jàpp ci liggéey bi bu baax baax yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala fay leen yiw kon ñu dellu ci euh, mbind yi nga xamante ne moom la ñuy jukki tey ci binduk Maam Baye Niass rahimahullahu subhanahu wa taala digganteem ak alquranul karim benn bés Maam Baye Niass dafa jël xalimam daal di bind mu ne ahibati yéen su may soppe nee ne fal tursilu nangeen ngeen yebal lan alwildaana seen doom yi Mame Baye Niass nee ne pour ngeen xam ne bëgg ngeen alquranul karim wala dund alquranul karim nañ ko doore ci lenn nee na yow mi nga xam ne yàlla dénk na la doom muy doom ju góor wala doom bu jigéen Mame Baye Niass nee ne sopp ma la sopp moo tax man ma lay jox benn message di la digal lenn fal tursilul wildaana na ngeen yebal ndongo yi leen kay yaqra'u waqta sibal qur'ana ñu mën a jàng ba ñu nekkee ndaw lan alquranul karim kon kii woote woone taalibe Mame Baye nga wala yow mi nga xamante ne yow yaay woote woone yaa ngi bokk fi ci réew mi ak foo mënti nekk man Baye Niass am na sakkuteefu borom bi subhanahu wa taala bi nga xamantene ne yegg na la ko bañ lool ba mom soppeem la la tuddé ndax lamu yéné bopam ëlëk la la yéné nee ne fal tursilul wildana na ngeen yebal ndong yi fan ñu dem ci daara ja kon jël sa doom té ci loxom yóbbu ci daara ja mag ñi dañ ko jëfé daal di koy digle bu baaxa baax kon mam Baye Niass nee ne xale yi yóbbu leen leen daara ja ñu jàngé alquran ñu jàngé alquran ak loo ti nek ak foo ti dëkk ak loo ti am maam Baye Niass nee ni mu ngi lay dénk conseil am ci bi nga moom la la jox mooy jëlal say donga sa jëlal say doom yóbbu leen ca daara ja ñu jàngi la nga xamante ne moom mooy alquranu karim bayit boobu rek su fekkoon moom la ñuy andi jàngat ci bindu maam Baye Niass rek doyoon na waaye ñu xool ñu wéy moom waxoon na ne kitaabun min allahi aljalili jalaaluhu qadimun wa baaqin laa yaxaafu zawaala nee na alquranul karim bii nga xamante ne mu ngi jóge ci yàlla buur bi subhanahu wa taala maanaam nee na alquran kenn ragalu ci moom mu deñ fi alquran ku ci jàpp day dem ku ci jàppul day dem ku jàpp ne yow yaa tee yow yaa tax alquran tasaaroo fi nax nga sa bopp yàlla buur bi subhanahu wa taala moom mooy yebal ay jëmm ay jaamam yoo xamante ne ci seen dënn yi la yàlla di sàmmee alquranul karim ci seen lammeñ yi la yàlla di sàmmee alquranul karim suñu xotti woon wala lakk kaamilu alquran yëpp ay xale yu ndaw daañu tëju ci biir daal di bind li nga xamante ne moom mooy alquranul karim yàlla moom moo ko aar kenn mënu ko fee jëlee yàlla moom moo ko aar كن منو تي يوكو لن يلا موكو آر كن منو تي واني لن لول لما مبين يسوح نيني القرآن الكريم يلا بربي سبحانه وتعالى موكو سام البطم نين تلاه الفتى المأمون جهرا ويقثة فدع بعد هذا كل قيل وقال وحجي كيب كوي وخكت ورنك كو باي يخل تي جامرو جي نيو وخوكا هي دافا باري باي نيتني فتلاه الفتى المأمون نين يونتي بي صلى الله عليه وسلم يلا دافا جيل القران جوخكو جبريل جبريل جحكو ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي داركو جنغ صحابي داركو بند موكل كو سبعة أحرف يب داركو موكل قراءات يب نخمني القرآن أموت لن لو خمني يكونتي أموت لن لو خمنتني وان يكونتي لب لواي سخلة خم خم مجتي القرآن لب لواي سخلة تياب مجتي القرآن مام باي نتنين فدع بايل كل قيل وقالا ديونين ديونين جدوينه Mame Baye Niass ne nag soo demee bay wax wala soo demee bay waxtaanal nit ñi wala soo demee ba ñu jox la micro nel di la déglu nee ne bàyyil waxu diw ak diw jiitalal alquran lii waxu mag ñi la nee na fa da baada hada kulla qiilin wa qaala bàyyil béppi wax joo xam ne diwa ko wax diwa ko wax wala léeg nga gis koo xam ne woo nañ la conférence ñëw ne la kaay waxtaanal nit ñi dangay gis nit ko wax ñaari waxtu du yëkkati benn laaya alquranul karim hadihi kaarisa du moom musiba kaarisa la parce que dafa am yoo xam ne man maa ko fekke walla toog ba sa dem jot saamaam nee ne rek ngay wax saamaam neene ne saamaam te da nga toog en tant que ñu ne la lan kaay waxtaanal nit ci diine te diine la ca jiitu mooy alquran la ca topp mooy hadith mag ñi lii moo leen gënal lii may wax moom moo nekk ci bindu mag ñi nee ne fa daa baada hada kulla qiilin wa qaala maam Baye Niass nee ne lu waay loo bëgg ci wax rek ñëwal ci alquran tey jii ngal la ñu ngi dénk ñëpp ñu gën a yaatal seenu xam-xam seenu alluwa ci alquran wàllu qiraat ñu ñëw ci ilmu tafsir tey jii kutubu tafasir yeeg mënu ko jeexal tey jii su yu wàll gu nekk mën nga ci tafsir ak tafsiru bi ra'yi ak li nga ak tafsir al ma'thur bu ci nekk ay téere yu baree bari lañ ci taalif kon nga xam ne dafay yokk nit ki waxtu wu nekk mën nga toog di wax ci alquranul karim te du jeex soo déggee alquran dëgg benn laaya rek mën nga ci nekk di ko leeral di ko leeral ay waxtu yu bare bari kon alquran kenn mënu koo jeexal ni ko yàlla nattee moom dafa ëpp dund doomu aadama donte seconde bu nekk yaa ngi wax ci alquran di nga dund donte ñaari junni at nga dund di dund ba jeexal te alquran du jeex kon fa da baada hada kulla qiilin wa qaala maam bàyyi ñes nee ne bi nga déggee sama wax ji bàyyil waxu diw nee ne diw nee ne diw nee ne moo lay duggal ci yoo xamante ne bu yomal xiyaame doo ko mën a layal waxal ci alquranul karim nga am ngërmaande ñi lay déglu am tuyaaba gu dul jeex parce que dañoo am lan tuyaaba yi déglu alquran xam nga nit nga fexe mu dégg alquran dafa rëy lool yàlla nee ne wa in ahadun min almushrikina stajaaraka fa ajiru xatta yasmaa e kalaam allah mu ne yonent bi donte kenn ci yéefar yi dafa ñëw ne la fat ma fat ko ba mu dégg lan yàlla waxul ne nga fat ko pour jox ko mu lekk de mu yem ca objectif bi du pour mu lekk objectif bi du pour mu tëdd fu nooy حتى يسمع كلام الله بمو ديغ القران كن ديغ القران دفع فام لوموي ديف موم وجاهدهم به جهادا ايه كبيرا جهادا لك نيوم تي القران واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون ايه القران جن يالا تي بوبم صرفنا القوه الالهيه تي يالا يالا مولن تصريف مولن ولبتي andi leen ba ci yonent bi pour leen ismaw alquran qul uhiya ilayya annahu istama ilayya nafarun min al jinn istima boobee ba léegi ci leen alquran yow nag ñu jox la micro nga xam ne nga wax ñëpp di la ci déglu ay junni nit doo leen wax alquran yow ñu ay caméra team la nga mën a wax ay millions ngi nit di ko jot góorgóorlul nga fexe ñu dégg benn alquran parce que nit wala mbindeefu yàlla liko composé yëpp ay jaamu yàlla yu nek ci mom la ajibu allah la parce que mota yàlla am objectif ñu dégg alquran suñ koy dégg rek pour ñu gindé ko da fay yomb ngal la bul xagnati nit ñi tiyaba googu ngal la bul xagnati nit ñi pour andi leen womat len ci yoon bobu lolu la mag ñi xamone nak parce que mota ñu ne fa da baada hada kull qil wa qaala maam bàyyi ne in sirri kalam rabbil mubin kalaamu rabbi almubin ay ilahi alladi bihi nastain nee ne sama secret sama mbóot man bàyyi dullen lu dul alquran nee ne kalaamu rabbiyal mubin sama secret man Baye Niass rahimahullahu subhanahu wa taala nee ne secret moom mooy alquranul karim nee ne soo bëggee ma gën la koo leeral ay lan lil bayani wa tafsir ilahi alladi bihi nastain yàlla mi nga xamante ci moom laay sakkoo ndimbal sakkuuma ndimbal ci kenn ku dul yàlla buur bi subhanahu wa taala xaaliqi alsamawati wal ard alladi nasaba aljibal wa mahada al arda wa xayyama alsama nee ne ci kookee laay sakku ndimbal من فاجعل الروح واللسان دواما وفؤادي متى تلوت يلين لا اله الا الله mu tàllal ay loxoom xoola la muy ñaan yàlla mu ne yàlla dama bëgg sama ruuxu ak sama lammeñ nga def ko mu nekk loo xam ne luy saxale lan ci alquranul karim sama lammeñ waxtu wu nekk muy jàng alquran sama gémmiñ di tari alquran al karim waaye sama ruuxu nekk loo xam ne alquran moom moo koy dundal nee na wa fuaadi sama xol mata talawtu yaliinu su ma jàngee alquran sama xol mën a nooy sama xol mën am nek xol xol bo xamne xol bu am yërmande la mo meuna nek nit ko xamante ku lewet lol xoolal soy jàng alquranul karim donte sa xol dafa mel wawon kong kong del jàng alquranul karim ga bàyyi ci xel wala ngay fexe di dégg alquranul karim legi sa xol noy da ngay gis nit ko xamante ponkal la waaye soo jàngee alquran nga gis muy joy di joy di joy ni xale bu ndaw parce que lako waral alquran dafa ñëw dal di rosé xolam xolam dal di toy xep xep xep mu ne taqsha'irul julud war ruh yasmu عند ذكر عند ذكر الحكيم أو يستبين nee na nga xam ne yàlla may ma saa yu ma jàngee alquran rek taqsha'irul julud nga xamne suma su ma alquran rek sama yaram daw waaw sama yaram daal di daw nga gis ma man may lox war ruhu yasmu sama ruhu di yek waxon na len ñetti baat yi mu siiw lool alquranu yanfa alquranu yarfa alquranu yashfa alquran fay jari nit yarfa mu daal di la yekati ba ca wetu yàlla bur bi subhanahu wa taala يشفع بيوم القيامه مرم لا غدا دغو الجنه نيت عين يي سي القران رك نكوي امي نينا والروح يسمو سما روح من ييك سي بروم سبحانه وتعالى كاج عند ذكر الحكيم او يستبين غا خمني فونيو جانغي القران سمي جانغ القران سما روح دي ييك ولا سونكو جانغي ما ديغ كو سما روح ييك لولو من امام باي ناس دافلاي دوندو دافلاي جونجو ايه القران الكريم بوغي الله نزل احسن الحديث ملني يلا حمو سخله حديث بي خا خني حديث عبد آه، عبد عبد آه، عبد عبد الطاهر من عبد الطاهر خا خني كوم نيم كو نيتالي سي اسباب النزول دانيو نيو تي صلى الله عليه وسلم من كسند بو خا خني موغي جيهي سي سعد ني نيو تي صلى الله عليه وسلم حدثنا يونتي بي كاي وقتانال نيو نكو نيكا جابي سا بوب يونتي بي تي حديث بي حدثنا عبد القاهر بن طاهر من حدثنا وقتانال نيو يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي ديم باي واجا واخ يالا دادي واتيه li nga xamne moy mooy alquran bi allah nazzala yàlla dee wàccee na ahsanal xadiisi gën jaay rafetuk waxtaan kom que yonent bi dafa bëgg door wax yàlla dal di wacce waxtan ga nga xamne mo gëna neex moy lan alquran kon yow mi ñu jëlee dëkk ba dëkk ne la kay conférence al ñu yow mi ñu jëlee dëkk ba dëkk ne la kay waxtanal ñu so démé bay waja commencer rek fatlikul hadith a aaya alquranul karim gii ba ngay waja door rek yàlla neen la ah sëñ bi xawma ban tém nga jël de xawma ma yan argument nga bind xaw ma yan auteur xaw ma kan bindu kan ak kan nga jël waaye na leer ne waxu kan wax ji gën a rafet mooy sama bos man yàlla maa leen a jiitalal sama wax conférence boo mën a def te jiitaloo alquran neexul wàcc nga yoon bi wàcc nga méthodologie bi da nga koo wàcc boo mën a def te jiitaloo ayat alquran waxtaane woo alquran wàcc nga yoon wi ndax allahu ndax yàlla buur bi subhanahu wa taala nazala moom moo wàccee أحسن الحديث جن جاي رفتك وخ منكلا كتابا متشابها مثانية متشابها في إيه تلقى قبل موي أي أحكام عدل جنك في القرآن عدالة جنك في القرآن جمال جنك في القرآن حسن بنك في القرآن حسن الترتيب بنك في القرآن حسن السياق بنك في القرآن الناسخ والمنسوخ بنك في القرآن الكريم بو خمانتني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم القرآن الكريم سوكو جنگ بيجي آيات يخم دفع وقتان تيم بوغل wala di waxtaan ci sa wara nga gis mag ñi dafa luñ tuddee attarassul sooy jàng alquranul karim del jiflanti ak qur'an soo yeggee ci aaya yoo xamante ne day wax ci mbugal wala di wax ci bàmmeel wala di wax ci safara da nga war a da dafa war a feeñ ci sa baat sa baat dafa war a feeñ ab raglu dafa war a feeñ ab tiitlu da nga war sa yaram dafa war daw nga mel kuy lox ndax la nga xamante ne moom la alquranul karim di wax waaye soo yeggee thumma taliinu juluduhum wa qulubuhum ila dicrillah waye sa yo yegge ci ay yi nga xamantene ayatu bishara la di wax ci aljanna di wax ci bigle di wax ci bigel doomu adama nga gis sen xol daal di dalaat ñoom ñu commencé di muuñ alquran rek mo meuna def li nit ki mo lay jooyloo legi daal di lay lo legi da lay jooyloo léegi daal lay reetaanloo léegi daf lay tiital léegi daal lay dalal parce que soo yeggee ci li nga xam ne moom mooy waid teq shairu gi daal di ñëw soo yeggee ci li xam ne moom waad taliinu juluduhum wa qulubuhum daal di ñëw su la yàlla tëkkoo rek nga daal di tiit waaye su la yàlla diggee aljanna nga daal di kontaan sa xol daal nekk li nga xam ne moom mooy nooyaat dalika hudallahi yahdi bihi man yasha dalik mu nekk lan alquranu karim hudallahi mooy njubug yàlla boo xamante ne yahdi bihi man ca la yàlla di gindee ku ko neex ci ay jaamam wa man yudlilillahu fa ma lahu min haad képp koo xamante ne yàlla buur bi subhanahu wa taala sànk na la amul ku la mën a ci jubal kon ku alquran gindiwut leneen mënulaa gindi koo bëgg gindi jiitalal alquranul karim su ko yàlla naralee lu baax rek yàlla dina ko andi kon wax nit mënoo wax lu gën a rafet alquranul karim parce que ci ñun mënta dégg arab ba gën a dégg arab waa quraysh loolu daañ ci ñëw ci ay jotaay yu baree bari ñom dañu nekkon ay kéemtaan ci digg arab dañu nekkon ay kéemtaan ci walu way parce que walu shi'r al arabi suma ko waxe xam ngeen ko bu baakha baakha baax waaw xam ngeen ma ci walu shi'r al arabi wa ana aqulu shi'r irtijalan fi jami' al buhur wal qawafi waaye ñun mënuñu leen a dab kon ñun mënuñu wax lu melni al qur'an al karim bi lisan arabi e mubin kon nañuy jital al qur'an al karim fi kulli shay fi kulli khitab lépp lu ñuy wax nañ ci jital li nga xamne moy al qur'an al karim ما أمباي نسيني وعيد عدوي لم يخفني ووعده نيني تكو سمي تكو ما نام سما نوني تكو ين مدان تكو بس كل نين توبابي لو نك جيب نكو أكبر نجي نيوم نك نيني نيو تكو بني ما من تكو من نكو لو خم أنتين لومي لومي تيتل منو ما تيتل سؤال نيوان تو جيني ليه جمارة إلا دنيو جيني منو تي نيوم دارا بس كنيوم جمنا نو يالله بربي سبحانه وتعالى ده قصدنا القرآن lu la dal ci musiba dara mënu dal lu dul loo xamante ne man yàlla bind naa ko qul lan yusibana dara mënu leen dal ci musiba ak looy jéem lu dul loo xamante ne moom la moom la yàlla dogal ne moom moo leen dal parce que wa makaru wa makara allahu wallahu xayrul makirin ñoom nan la ñuy jàngee ayat yooyu daal di koy tadabbur xool ko te gëm borom bi subhanahu wa taala nee ne waidu aduwi lam yuxif nii sama noon yi tëkku yiñ may tëkku maam Baye Niass nee ne ragal loowu ma mukk taxul ma toog di ko xalaat teewu maa def sama benn jaamu yàlla nee na wa waaduhu seeni dig xam nga da ngay gis noonu lislaam yi léeg-léeg suñ la bëggee nax dañ leen njëkk a tëkku suñu mënul ci yow dara ñu daal di ñëw xool nag andi li nga xam ne moom mooy tarxiib dig la ay millions ñaata oustaz ñoo fi daanu ngir ay millions yi ñu leen dig dig la ay milliards wala dig la lenn nee ne wa waaduhu sarabun bi qiaanin sarab suñ ko waxee mooy lu ñu tuddee jon njonox su ma juumut ci wolof mooy léeg-léeg ngay dawal ci télé bi naaj bi tàng nga seen ndox ca kanam nga foog ne ndox a ngi ne la nga dem ba foofu day fekk dara naaj waa tàngoon rek moom moo tax waaw nit ku mar nga daal di seen nee na ñoom ay naxe la lépp luñ ma digg ay naxe laa ko jàppee man maa mbay man maa maam Baye Niass nee ne mada dëhri yu xalifu lépp loo xam ne digg nañu ma ko man faalewu ma leen sax parce que xam naa ne loolu nekkut loo xam ne luy am la nee ne xaluun yi jéem nañu maa merloo lu nekk jéem nañ ko ci man pour daal di may merloo parce que bi ñu tàntee yi napp ma mënuñ ci dara ñu daal damay digg xaalis wala dig maa yi lu nekk faalewu ma leen qaluni ñu commencé di ma cuq di ma merloo waaw ñu ne xaar ma merlo ko wa kaadu bal jafaw ñu daal di commencé di ma napp façon bu nek mu ne wa taqawwalu ñu daal may sosal neena taqawwal moy sosal ma fental ma ay wax lu nek ñu yàq der li ñu tuddé yàq der amna ño xamne suñu mënul dara ci diw rek dañuy fexe di wër di yàq deram mam bay ñaseen ñu commencé di yàq sama der neena wala dayra inni aqra'u dhikra arifu faalewu ma leen lañ doon yàq sama der yépp yàlla dafa jël tuuma yooyu daal di koy teggi daal di koy leeral delloo leen ko parce que dikra aqra'u dikra aarifu alquran bi nga xam ne moom laa xam te di ko jàng moom moo tax yooyee dara mënul ci man dara parce que wa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati hijaban mastura soo jànge alquran promesse u yàlla la soo tiimee alquran di ko jàng kon ku jaaxle ku tiit dellul ci alquran ubbil téere bi di ko jàng yàlla nee ne soo ko tiimee di ko jàng rek ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati hijaban mastura soo ko ubbee di jàng rek sa diggante ak noonu lislaam yi sa diggante ak sa noon sa diggante ak ki la bëgg sa diggante ak ki lay fexeel ki lay lalal ay ndëgg sërëx yàlla ne sa diggante ak moom dama ciy lal benn kiiraay boo xam ne du mos a yegsi ci yow mukk kon soo bëggee làqu ci fi nga xam ne mooy kër yàlla jàngal alquranul karim kon tey jii lii moom moo nekkoon suñu jotaay a salafu ma alquran ñu demoon ba kaw Kaolack jukki ci bindu ki nga xam ne moom mooy suñu maam Baye Niass rahimahullahu subhanahu wa taala ñu jukki lenn غيد من فيض كتبه نجوك لن تي لاغا خا نم موم لا بيند ci walu alquranul karim ku delu ci ay mbind ci ay mbindam di gis ne yaatal na lool ci walu alquran waye ak soññe ci walu alquran bi nga xamne mom moom moy ñewu Cheikh Xusari fi Sénégal danaka bobu itam benen histoire la jombul dan ci ñëw bés insha allah taala ma kaana min sawabin fa min rahman wa ma kaana min xatin fa min xusaan sallal ilahu ala nabiyyi wa alihi ma la ba mulabina tahallal muhrimu duñu fàtte ba legi suñu tëj ñi nga xamne ñom ñoom ñoo ànd ak ñun muy lo multimédia ak li nga xamne ñom ñoy Reflect Studio ñu ànd ak ñun ci jotay yi يلا يلا بورب سبحانه وتعالى بركان لو تجيب يلا بورب سبحانه وتعالى لو تيدنغ نون لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته